bi haadal mabdail quraani bokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla noo ngi delluwaat di sàkku njëggalu borom bi subhaanahu wa taala di ñaan mu teg nu ci ak njubam te gaarante ba duñ ko génn jëm feneen fudul ci ci njubam te bu ëllëgee la mu diggee ci njub gi yàlla nu am may tawféex ñu jot ca mbokk lislaam xam ngeen ne niñ koy faral di waxe te fekk ñu baax ñi daan ko wax mooy rekk dina ju mat sëkk la bàyyiwul benn wàll boo xam ne dund doomu aadama daf koy soxlawoo ndax dafa bëgg ñi mu indi ci kaw suuf mission bi mu leen jox te mooy ñu dundal kaw suuf ñu mën koo def te loolu nag pour ñu mën ko faw ñu déggoo faw jàmm am kon ñaar yooyu su amut day mel ni mission biñ bokk sottal ko du yomb loolu moo tax li ñuy wax diisoo bokk ci ponk yi lislaam yi nga xam ne ki la taxawale société islamique bi mépp mbooloo jullit diisoo da caa war a bokk ndax soo xoolee fi mu def diisoo da ngay xam ne jox na ko importance bu mat sëkk diggante julli ak joxe ci yoonu yàlla ca aaya booba ngay fekk lañuy ñuy wax mbirum diisoo kon mooy wane ne gis ngeen yi ko séq kon moom daa am solo moo tax mu ne foofu moo tax yàlla teg ko foofu pour ñu xam ne du lu ñu war a gannaawal loolu moo tax boo demee ci alxuraanul karim itam da nga fay fekk ay exemple yu am solo yoo xam ne ay nit yàlla def ci wane ne bañ ca tollee ñoom diisoo woon nañ xam ngeen ne balxiis mi ñuy wax ak xisam bu gudd boobu waaye li ci li nu ci amal solo mooy aaya bi yàlla wax ne ba mu dajalee mbooloo ma daf ne leen ah mbir maa ngi nii nag man kat daawuma def dara te waxtaanuwuma ceeg yéen kon nag yéen lu ngeen wax ñu ne ko nun daal am nan kàttan am nan doole li ci des nag mi ngi ci yow loo wax rek ñu def ko kon loolu ku ne xam na ne diisoo la ak ñi ko séqal waaye soo demee ci beneen xista bu gën a yéeme sax mooy Seydina Ibrahim alayhi salaam mook doomam ja ba mu géntee ne ba mu tàllalee loxoom ñaan boromam pour mu may ko njaboot yàlla may ko njaboot mu dem ba njaboot ga màgg mu mel ni dafa gént yàlla ne ko dangay ngay rendi njaboot googu muy bañ demee ba ñëpp am ci yaakaar moom mi ko doon ñaan yàlla jox ko mu am ci yaakaar mu mel ni sunu boroom daf ne ko rendi ko mu daal di xëy wax ak doomam ne ko dama gént gént gu ma gu doy waar kat ndax dama gént ñu ne man naa la rendi kon nag xoolal ba xam yow lu ji sa xalaat doom ja di ku dégg ndigal wuuteeg ñu baree bari ñi nga xam ne du ñu bàyyi xel seen ndigalu waajur waaye mu ne ko ku ne xam na ne bakkan lu dis la waaye man nag lu loo ma digal rek laay danaa loola lay def te yow defal li la yàlla digal li la yàlla digal ci man daal def ko bu soobee yàlla da nga ma fekk may koo xam ne loo ma teg rek danaa ko attan ndax danaa ko muñ bokk yi xiste yu mel nii yu am solo la yoo xam ne dafa am lu mu war a wane ci biir société bi ci déggoo ak dégg ndigal gu war a am te su amul rek jafe-jafe mën naa am waaye itam diisoo gis ngeen ko li ndigal li jóge jóge ci boromam ñëwul rek ne ko kaay ma def la nangam waaye dafa waxtaan ak moom diisoo kon mbokk yi loolu day wane ne kum mu mën a doon place boo taxawee war ngaa bàyyi xel diisoo ginnaaw xel mi la yàlla jox def na ko ci junniy xel wala lu ko ëpp te am na ci yu féete kaw mën naa am boo diisoo da nga gën a def lu rafet loolu moo tax diisoo di lu am solo kilifa war koy def bu baax ki ne ci biir kër gi jiite njaboot gi war koy def bu baax ki ne ci liggéeyukaay bi seq goog ñoo xam ne moo leen jiite ci liggéey bi war koy def ci gàttal daal nit ku ne foo mën a nekk war ngay diisoo di bàyyi xel ñi ci des ndax sunu boroom moo ko digale te nag noo mën a toll ki ko yàlla digal moom moo la gën fuuf gën laa tedd te mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom la ko yàlla wax ne ko diisul kon yow noo mën a toll rek ki la gën a kawe la ko yàlla digal kon mbokk yi loolu moo tax nag soo demee ci sunu mag ñu baax ni ñu fonkoon diisoo lool euh, ki nga xam ne mooy abdullahi di xaadimu rasulihi xam ngeen ne lépp lu mu gis ne yàlla digle na ko ab yonentam ba teg ci tàngam faw mu xeñtu loola jëfe ko moo tax bokk yi bari na lu nit ñi wax te fekk demewul noonu sëriñ bi ku mënoon a diisoo la ku mënoon a diisoo la bañ na ko sax ba sëriñ ma Lamine Diop nee na amoon na ab conseil boo xam ne moom mi ngi ko tuddee ci téere ba majlisul xàll wala aqd mooy ñoom ñooy fas ñooy fecc am na mbir yoo xam ne daal ci ñoom la koy yóbbu ñoo koy waxtaane luñ ca jàpp mu wéyal ko loolu bokk yi dafa jëfandikoo rek euh, tomb bii ñu waxte mooy diisoo loolu kon bokk yi war naa tax euh, ñun ñëpp ñu am woyof ak diisoo te nag ni ko fi wutu woon itam ci doxin woowu rek lañ doon dox am na ci ku tedd koo xam ne danaan faral wax ne du ma wax ne du ma juum de ndax nit laa te nit moom daa baaxoo juum ndax yàlla moo ko bindee noonu waaye suma ma juumee nag mbooloo mu baree bari danañ juum ndax bala maa def dara naa ci diisoo ak ñoom kon woowu yoon woow lañ xalal xàllal ñu war koo bàyyi xel fu ñu toll te nag bari kilifa goo xam ne def na loo xam ne du ñu wax ne rafetul waaye mënoon naa gën a rafet waaye ñàkk a diisoo moo ko ko teg kon diisoo bokk yi dafa bokk ci li nga xam ne war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax bokk yi bu ñu nee diisoo am na solo nag ba xam gis fi ko yàlla teg ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mag ñu baax ñi ak niñ ko doon jëfandikoo. Euh, te jege woon seen boroom lool kon day wane ne euh, diisoo lu am solo waaye nag bokk yi am na nag lu mat a sàmm lu ñu war a sàmmoon teel ci bu diisoo jotee ki ñuy diisool ki ñuy ki nga xam ne moom lañuy ñuy su fekkee ne day ko xat ba kenn mënu koo jege ku ne yaa ngi ragal wax ko nangam ba mu tegal la ca nangam diisoo du ko yomb loolu moo taxoon yonante bi sallallahu alayhi sunu boroom wax ko ne ko yàlla dalaa nooyal sag wet nit ñeme la moo tax ñu man laa moo tax ñu ne sa wet waaye am na noo xam ne soo ni meloon nag dañ la fi bàyyi dem seen yoon kon bokk yi nooy ak lewet dafa bokk ci mbir yi ku bëgg di diisoo faw nit ñeme la pour mën a diisoo ak yow suñ la ragalee wala ñu ragal saw ay diisoo ko du yomb waaye bokk yi kii diisoo itam war naa fexe ba mën a dégg am capacité mën a déglu kuy diisoo da ngay déglu ndax dootoo jiital li nga xalaat rek waaye dangay déglu ñeneen yi comme day mel ni capacité dég mën a déglu lu ci am am solo la moo tax boo demee ci alxuraanul karim am na fu yàlla doon waxee ne am na ñoo xam ne suñu déggee wax boobu day tagg ñooña ñi nga xam ne dañuy dégg wax waaye dañuy seet ba ci gën a rafet wax bi gën a rafet nag ku mën a déglu rek moo ko mën a dégg waaye bokk yi ki ñuy diisool itam war naa am melokaan nag ndax du ñëpp lañ war a diisool buñ nee nañ diisool waxuñ ne nañu woowaa mbedd meeg penc mi laaj leen ndax daa am ku ñu war a diisool kon bokk na ci li nga xam ne kii kii diisoo moo ko war a def mooy war naa tànn ñi ñu war a diisool xam ñi ñu war a diisool mu tànn leen ba bu diisoo jotee mu wax ak ñooña te bañ a wax ak koo xam ne bokkut ak ka war a waxal léeg-léeg itam diisoo am waaye ginnaaw waxoo ki nga war a waxal la taxoon diisoo jóg doo doo ko ci am kon faw nga tànn leen te boo leen di tànn itam na ko ci teg ci critères yu objectif bu ca dugal sama xarit la bu ca dugal sama mbokk la waaye danga naan kii de moom li may laaj moom xam na ko loolu moo tax mën nañoo wax ne kon ki ñuy diisool la ca jiitu mooy na doon ku xam liñ koy laaj nit ñëpp xamuñ lépp waaye ku ne daa am loo xam ku ñuy diisool nag day fekk liñ lay laaj nga xam ko kon xam da cee mën a munta ñàkk na doon ku wóor itam koo xam ne li mu lay wax moo mooy li nekk ci moom du dàkk sag bëgg rek du dàkk sag bëgg waaye day wax te yàlla tax na doon ku dëggu ku wóor koo xam ne li muy wax yàlla rekk la ciy sédd kon loolu ci ki ñuy tànn di diisoog moom mënu caa ñàkk kon loolu mooy wane ne mat naa moytu lool ay àndandoo ak i staff boo xam ne loo wax rek ñu tàccu la loo ne waa loo ne nii rek ñu ne waaw waaw noonu la kay ndax su boobaa njumte dana la yomb lool kon ñi ngay tànn di disoog ñoom ak tànn moytu tànn ñoo xam ne nag safaan bala ndax ñoom su boobaa lii la lii la ñuy ànd yow waaye bokk yi sunu mag ñi itam dama koy faral di wax toujours di wax ne seen kàddu yooyu ñu daa wax dañ ko war a teg bind ko boole ko ci li ñuy doxale sunu réew ak sunuy sunuy sunuy njaboot ak sunu mbooloo waaye léeg dañ koy nettali rek ñu dégg ko waaru ci yéemu ci waaye jariñoo ko day des lool te bañ koy wax nag pour ñu jariñoo ko moo tax te itam léeg nga jëli xalaatu ku sori lool muy di bëgg a jëfandikoo loola koppiye ko te fekk na loola du pour yow ndax yàlla moom ku ne daa am num la bindi am num noo mel la gën mooy booy tànn nga tànn lu la niru te bañ a dem copie ji loo xam ne keneen lañ ko defaloon loolu moo tax faw ñu jàngataat wax yooyu te loola bokk na ca daa am mag mu baax mu sëriñ Tuubaa yar moo xam ne nee na nit day su bëggee diisoo na ca sart ñaar kii muy diisool na am xam-xam ni ma ko waxee woon sànq na dañub réer te amub reer mbokk yi amub reer boobu lu jar a taxaw la ndax waxin la rek mooy koo xam ne mi ngi xalaat li nga koy jox sooy diisoog moom du la wax li mbir mi koo xam ne soo ko joxul du reer day seet li nga xam ne rek jàpp na ne soo ko waxee mu neex la mu wax la ko kon baat yu mel noonu ci dañ ko war a yëkkati mu dem ba ca kaw président baag xalifa baag imam baag keneen ku mu mën a doon ki muy diisool na ci sóoraale loolu koo xam ne lim koy wax yàlla xam na ko lañ koy laaj xam na ko waaye mën na boppam ba du yaakaar liñ koy jox tax mu dàkk li nga bëgg mu di la ko wax bokk yi daal yii yëpp day wane rek ne lislaam bàyyiwul benn tomb waaye léeg-léeg niñ koy waxe ak fañ koy waxee ak niveau bañ koy waxee mooy tax ñu woyefal ko ba duñ ko jox benn importance bokk yi diisoo ci lislaam la bokk ndax yàlla ko digle te moo ko digal ki nga xam ne moo féete kaw ñëpp ñi doon yilif ci biir société islamique bi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu ubbil nu bunti jàmm ak xéewal ak wér def naataange ci sunu réew def ci def sunuy kilifa diine itam sunu borom sàmm leen ba mébét yi nga xam ne moom lañu am ci def ko ci diine ji ñu am ca lu kawee seen jot te nu ànd ko ak ñoom te am ci ngërëmul sunu borom subhaanahu wa taala te loola kooku nag ka jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mbooleem kilifa yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi waaye rawatina ci sunu réew kon ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu saxal nu ci ak njub yi nga yu mel nii nga xam ne moom la ñuy waxtaane itam mu dugal ko ci sunu xol ba ni ñu fonkee julli fonke ko def ci yoonu yàlla ñoo xam ne diisoo it ca la bokk ñu boole ko ci suñuy mbir yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صفي خلق الله ومجتباه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة المؤمنون لقد وقفنا على أهمية الشورى في الإسلام ولكن لكي تتحقق المشورة الناجحة لا بد من مراعاة ما يلي في المستشير أولا لين الجانب يقول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك وثانيهما القدرة على الاستماع وقد مدح الله سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما يجب توفر ما يلي في المستشار منه اختيار أهل الشورى وفق معايير موضوعية من علم وأمانة وصدق وأيضا تجنب بطانة السوء وهي التي تسوي لك كل عمل وتصفق لكل قرار وتملي لك إن الجاهل والذي لا يملك قوت يومه قد لا يستوفي في أغلب الأحيان الشروط التي يجب أن تتوفر fi man tuxadu minhu almashura wa kaana alabdu alqadim yaltasimu bi mabdai shura wa dalika bi inshaihi majlis alxalli walaqd alladi takawana min kibaari muridihi wa kadalika xulafaauhu min bacdi wa minhum man qaala bi annahu min bani aadama alladina min sifatihim alxata lakin xata'uhu yakunu daa'iman mushtarakan baynahu wa bayna jamaatin mustafida li tatbiqihi mabda ashura allahuma salli wa sallim wa barik ala alxabibi almustafa salaatan taftaxu lana biha abwaab alrida wa taysir wa tuxliqu biha anna abwaab alcharri wa taxsir wa takun lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna nicma almawla wa nicma alnasir allahuma ainna ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik allahuma allahuma allahuma maxfiratuka almuammala awsa min dunubi aasin muhila allahuma maxfiratuka al muammala awsau min dunubi aasin muhwila allahuma allahuma maxfiratuka al muammala allahuma maxfiratuka al muammala awsau min dunubi aasin muhwila allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatix lima uxliq walxaatim lima sabaq naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari alazim